journée tey bi dama si kontaan euh, ndax bu ñu jëlee doomu Bambilor def ko parrain wu euh, distribution des prix pour seemu Bambilor 2 loolu amul lu dul euh, kontante bu ma si mën a am parce que kontante bi mooy ne dafa mel ni doomu Bambilor yëpp lañ ko defal. donc beneen bi mooy bu ñu waxee si waxu njàng mi élèves yi lan lañ leen di wax boo xoolee Nelson Mandela lan la waxoon.

pour que ñoom ñu xam naka la ñuy mën a jàppee seen àdduna pour xam ni école kese moom moo man a soppi jamono man mi lépp lu ma mën a am si sama àdduna école moom ma ko mën a may moo ma ko may ak ñii leen di jàngal aussi école moo leen may lépp donc kilifa goo tudd si dëkk bi rek njàng moo ko may loolu donc daal éducation dafa am njariñ bu ñu ko jëlee ne parents d'élèves yi parents yi man dama leen di ñaan parce que man étant président de l'APE boo xoolee APE bu Bambilor bu lycée bi soo ootee assemblée générale ñii ñëw duñ ñu bari donc parents il faut ñu xam ni seen doom yi ñoom ñooy seen trésor il faut que ñu ñëpp ñu jàpp si pour que seen njàng doom mën a dox bu ñu bëggee suñu dëkk développé il faut ñu rey suñu bopp si njàng mi man de loolu exemple laa si parce que man lépp lu ma am ginnaaw yaru sumay jur yaru suma ñoom maam lépp. am njàng moom moo ma may donc njàng kese la nit ki mën a def pour man am si lu bari man donc daal loolu laay ñaan parents ñuy dem école di nemmeeku seen doom yi di nemmeeku jàngalekat yi di nemmeeku lépp boo xoolee bi may ñëw dama bindoon discours bu rëy mais dama ko ñëw sax waxuma si ndax Sané ni mu waxee euh, def discours d'usage bi famille la wax relation famille professeur ak école bi yëpp donc loolu dafa am solo inspecteur bi wax si njàngale mi ni mu mel euh éducation bi est-ce que njàng mi am niveau bi mu amone est-ce que amaat na tay principal bi wax si jafé jafé yi président appui bi aussi waxat si jafé jafé école yi man kat japp tay euh seen Bambilor 2 imaginer classe bu meuna am 100 personnes plus de 100 personnes si ay classe lolu ah doyna na xalé duñ sax tok bu donc man damay laaj fofu suñu autorité yi fan la ne bu ma autorité xëy commune bi man nañ wax ñu ne ñun si euh, ki départemental lañ bok conseil départemental mais commune bi ñi fi jàng ji ay seeni doom lañ seen askan la parce que maire bi fi nekk man dama koy oo nekk na jàpp si école bi école Bambilor de laaj na ñu jàppale ka yeneen seen yi nekk si dëkk yi laaj na ñu jàppale leen man mënuma comprendre tey ñu nekk le 14 décembre ba tey dégguloo ñu wax waxu euh, fourniture scolaire des ñu né nangam def nañ ko écoles école yi ba ci ouverture des classes xëy na période boobu maire bi nekk fi mais commission bi mu fi tek ni waa commission éducation mais comme ñom fan lañ nekkoon man dégguma benn yoon ñu né maire bi dem na ci telle école wala seeti na benn école donc le pour man ñom war nañu defat orientation par rapport ak seen liggéey war nañ changer avoir doxalin par rapport ak. njàngale mi parce que bu mu jëlee école yu ndaw yi mooy primaire yi nga xam te ñoom moom lañ yor mais école yi seen délabrement dafa bari war nañoo mën a wax que ne ah Bambilor 2 nañ si def li wala yeneen écoles yi nañ fa def li Bambilor 1 ni mu mel ñu def ko donc si ñun loolu lañ xalaat ñun waa APE ñu ne kat ah dinañ jëlaat école yu ndaw yeeg école yu mag yeeg yëpp boole leen. dal di créer lu ñuy wax union des AP e. lolu suñu ko défé dinañu permettre que njangam mi ñuy gën a sax njangam mi ni muy soxé parce que bo jappalé primaire bi njangam mi gën a baax nga demaat ci CM bi njangam bi gën baax kon lycée bi nga xamanteni ni wara jëlat lolu lim njangam bi dina gëna a baax amuñu luddul jang té lolu dañ ci ñaan maire bi mom mu am lu mu ci def japp ci parce que lolu kese la mëna def pour que dëkk bi mëna a dox bam la dañ bari problème moo bi may wax si discours bi ma ni leen Bambilor dafa bari problème waa Bambilor kese ñoo mën a defal Bambilor donc man si laa oowee mooy ay ñoom Mamadou Sall Diop ñoom ñëpp ñu ngi fi woon ma oo ne leen ah dëkk bi dafa soxla doomi Bambilor bu ñu nee doomi Bambilor Bambilor nag li ko yàq mooy politique ndax Ousseynou Gueye danaan mankat kat ànduma ak Ndiène Diop wala kii ne ànduma ak diw wala kii ne ànduma ak diw nit ñi foog ni ay noon lañ alors que ñun dañoo bokk lu ñuy ut. lan la ñuy ut defar dëkk bi waa defar dëkk bi soxlawul noonu donc man nag damay oo ñëpp soxlawul nga ànd ak x wala nga ànd ak y na leen àndandoo laame dans laame pour yëkkati dëkk bi jàppale dëkk bi tey jii boo xoolee njàng bi bu ñu si rayee suñu bopp ñaata doomu Bambilor ñoo nekk si biti ñaata doomu Bambilor tey ñoo am ay doctorat waa dañuy seetaan suñu rakkay di yéeg si ay gaal ak yooyu déedéet dañu war a ñafe jàppale leen si njàng bi man foofu laay oo maire orientation yi muy def di fayal ay étudiants di fayal lu lépp baax na mais naka delloo tamit si école primaire yi ni jàppale école primaire jàppale lycée bi jàppale CM yi Bambilor boo xoolee lycée bii ñu am du turu lycée rek la ñu am mais amuñu lycée wax mais tey dëkk bu doy ni Bambilor ak ñëw. comico ñëw CBC di ñëw am yeneen ñuy ñëw armée lu Bambilor sa léegi tuuti moo si des waaw loolu lépp c'est un problème donc nag ensemble il ñu toog la main dans la main pour mën a waxtaan sinon demee dinañ am ay problème maire yi xaw ma kan moo fiy toogaat yàlla rek moom moo ko xam mais képp ku fi mën a toogaat di am ay problème su parce que li ñu fi waroon a yëpp assainir ñu si dara ki fi nekk moom lijjantiwul loolu lépp donc man dama koy oo solennellement nekk nag na delluwaat gannaaw xoolaat bu baax naka lay jàppale njàngale mi naka lay jàppalee dëkk yi ndax dëkk yi bari nañuy problème wambaam loolu na dañ leen di oo à l'unanimité ñu jàpp si école yi jàpp si dëkk bi man de sama sant du ma ko jaay géy gi ma sant noonu laa sant mais waa Bambilor ñoom ñoo bokk Bambilor dénominateur commun bi Bambilor la kon nañu xool loolu lu am solo la ñoom ñoom ñu jàpp si la main dans la main pour que dëkk bi mën a dox man daal loolu daal laa am si lu may wax ak waa Bambilor parents d'élèves yi nañ jàppale seen i doom ñu dëkk si dëkk bi nañ jàpp si école yi mais tamit jàpp si dëkk bi bu la neexee àndal ak Ndiène Diop bu la neexee àndal ak mm, Mate Diop wala nga ànd ak Ousseynou Gueye wala nga ànd ak keneen mais dëkk bi ñun ñoo ko moom ñoo ko war a defar nan leen ko defar. man dal lool lay lancer wa deuk bi yëpp suñu ko deful nak ah d'ici 2 ans 3 ans dinañ am problème ndax CM bi 100 personnes ci ben classe ëpp na te loolu dañ ci ñaan aussi autorité yi ñepp ñu jappalé ñu ci loolu dal la amone ci lumay wax maa